ak Cheikh Seydil Hadji Malick si li leen suñu borom boole ci lislaam boole leen ko ci bokk nee na loolu kenn mënu ci dara mu nee na mooy seen bayit yooyu ñu waxante woon aha nee na maam Cheikh Alxaaj Malik dafa waxoon ni dafa waxoon ni hadiyatun wala hadiyati muujibu hajtilaabu mahabbatin yaa ayyuha alxubaabu adaama rabbuna lanaa xabla alwisaali wa kuffana charra alladi ala aada wasal nee na loolu maam Cheikh Al Hadj Malick waxoon jëmale ko ci maam Cheikhul Xadim suñu borom nangu na ko nee na maam Cheikhul Xadim tontu ko ni ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi widaadi laa tartaabu waaw fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imaamuna wal qitla laa nahab nee na kon diggante boobu wallaay suñu borom daf ko garanti sàmm ko kilifa yi jëkkoon dox ci ba mu yegg si fii kon Cheikh Mouhamadul Muntaqa nee na nee na mu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax di la gërëm di gërëm sa kilifa yi ba àgg ci Serigne Babacar Sy Al Khalifa ak Serigne Maodo ak njaboot ga yépp ci lii nga ko cërale te xam ni wax dëgg yàlla sa bopp rekk nga ko cërale ah li Cheikh Mouhamadul Mansour ubbee woon rek nee na anta duyuufa ah, dama yaa dayfanaa law zurtanaa la wajatanaa nahnu duyuuf wala anta rabbul manzil wa anta rabbul manzil isan nee na dafa am benn waykat bu wax ni nee na lii muy wax mu ngi ci téere bi maam Cheikhul Khadim bind tudde ko Nahju Qadaa il Haaj nee na bashaasatu wajhi l mar'i xayrun min al qira hmm? fa kayfa bi man yaati bihi wa huwa daahikun nee na udaaxiku dayfi qabla inzaali raxlihi wa yaxtibu anni walmaxallu jadid walastu bi qawaalin nag ida dayfu xalla bi taraxala fa inna alxaya minka qaribun manziluna raxbun liman zaara lahu sawaun fihi wa taariq wa kullu ma fihi xalaalun lidayfi illa allahu akbar illa alladi xaramahu alxaaliq ah <laughs> gars yi gars nee na mat gan ca la ko neex waaye sëriñ Touba nee ba mu des lu naqar yàlla loolu la sëriñ bi wax nee na mu jeexal nuyoo bi nag ci sëriñ Khalifa Lo nee na mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax loo nee na yàlla def na ci suba nee na jotante woon nañ sax ñoom ñaar ngir yeneen yitte nee na mu yëgalaat ko it ni ko war naa fee ñëw ndax seen diggante ñoom ñaar nday diggante bu xóot lool bu rafet lool nee na ndax sëriñ Abdul Aziz si Al Amin bu ñu ñëwee fii fawuñu ñu fàttaliku ko ndax digganteem ak moom cofeel gu rëy gi nga xam ni sëriñ Abdul Aziz si amiin Al Amin amoon na ko ci rakkam ji di sëriñ Mouhamadul Bachir nee na sëriñ Mbaye loo dey xam nga ci lu bari lii muy wax. nee daf ko daan wax ni ko sëriñ Bachir dama koo yërëm ndax day ndaw yen ñu yen koy yenu mag macha allah nee na sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine di jëmm joo xam ni nee na loo gën a jaxasoog moom gën koo jàpp gën koo fonk ndax qualité yi suñu borom defoon ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ci bëgg nit xam teraanga mën a sonn ci yittey nit ñi jël léppam rek jox ko nit ñi waaye nag suñu borom fay na ko de ndax xol yëpp xol boo ubbi di nga ca fekk mu sopp lool Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nee na wóor na ko di day mu tëdd moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine xolam sedd na ndax lii dong nag lay yéene woon kilifaam yu ko jiitu yéppit nag di ay magam benn taxawaay bi rek kon nag koo ci tudd rek tudd nga ñi si des kon nee na mu ngi bañ a guddal kàddu yi ndax jotaay bi mel na ni yàgg na nee waaye mu ngi ziyaare wat sëriñ Sidi Ahmad bu baax nee di ziyaare rakkam yu tedd yii sëriñ maam Alpha mu ngi fi sëriñ Alioune Badara mu ngi fi macha allah ak ñépp sëti sëti sëti Hajj Maalik yi fi teew yépp mu ngi leen di nuyu ak tabarakallahu doomi boppam ji di Serigne Cheikh ibnu Cheikh Al Hadj Malick ibnu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh ibnu Cheikh Al na di ziyaare waat bu baax magam ju baax ji di Cheikh Mouhamadul Mansour hmm? nee na it tabaarakallahu Moulay Abdoul Aziz mu Serigne Habib mi nga xam ni moo ñu bégal léegi ci alquran ji tabaarakallahu Serigne Mouhamadul Bachir nee na mu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccuwaay nee na nag di rafetlu kàddu yi nag.